Euh, euh, fii li ma la fi bëgg a laaj mooy ñu bëri gis nañu ne par euh, nandite yi gis nañ tamit ne jàpp nañ ne président Macky Sall euh, mi ngi surfe tranquillement calmement ci yëf yi li jënd ay problème politique am dégg nga loo xam ne parce que am amatul sax Famara Ibrahima Sagna moom bu yeewoo nem tëdd nelaw ndaxte dialogue amatul sans dialogue moom président Macky Sall ma nga ma génn si yow rey na ko ndax euh, euh, dajal na ñoom Sonko ñoom kii Abdou Mbaye ñoom Abdou Mbaye ma nga ca yoon ba ñoom ñi ñeneen ñeneen ña nga ca donc est-ce que laaj bi mooy président Macky Sall entre euh, nous yow sax xam naa temps yi dafa mel foog nga far sax yow euh, mais récupération politique bu bu bu bu bu doy waar bi mu def nii nanditema euh, noo ko jàngatee c'est de la haute voltige hmm. politique waaye na boppam daal kàngam la ci politique. il est un des meilleurs de sa génération. il est il est très politique. fondamentalement ñu bari xeeboon nañ ko. waaw. mais ils se rendent compte que c'est un bon politique. Ouais, un excellent Et Et en tout lieu, en toute circonstance, on fait de la politique. Ouais, c'est ça. Et là, il a réussi quand sur waaw benn période bu difficile. waaw mu euh, am un consensus large. waaw quoique après de recevoir sax consensus boobu nit ci commencé nañu ko am. parce que c' un problème de sur ñun parce que lii raam ci ñàkk bi la jëm et tollu woon na fenn foo xam ne ku nekk da ngay ragal. Mm. réflexe bi lañ doon xaar ci président de am na ko mm. léegi nag. Mm. qu'est-ce qu'il va en ñi ngi ah tout dépendra maintenant. ci d' abord ban lay jeex. su continuer ci lii mu nekk. Mm-hmm. rien n'est impossible parce que. wax naa dans rien tempo Mamou Cissé man ak yow ñooy wax. Mm-hmm. xam nga li tax ñu euh, président Macky Sall moom euh, man moom presque moo ma yar man président Macky Sall moo tax <laughs> su ma tawee ci plateau lu ma neex laa koy wax <laughs> naan te la dégg daaj la donc. Euh, fi mu ne dafa mel ne corona bi nee naa corona bi am na ñu ciy jooy mais am na ñoo xam ne ci suuf ci pet jooyuñu ndax dafa li jënd seen problème mooy ma Macky Sall avant corona mi ngi ci jafe-jafe yu metti yu doy waar. Euh, di yónni ay nit ñu koy waxal troisième mandat nangam sàngam mais euh, euh, ni mu la semaine bi vraiment affaire bu grave bu mu def toog nii ubbi caméra yeeg nangam di recevoir noonam yeeg kii soppi yeeg nangam sangam ak bu ñu bu ñu la suñu corona bi est-ce que troisième mandat du yomb ci moom du jaadu ci moom li bëgg nii ci biir xol bi. xam nga sénégalais rek ñoo ñoo ñoo yàllaay fal mais en tout cas. mi ngi woon. ñi ngi décliné ñi ngi doon décliné yu des choses intéressantes ci dëkk bi cest à maa ngi wax sànq ne que croissance bi fi mu nekk l'essentiel était porté par les travaux du président de la République xoolal Dakar ni mu visage bi commencé changer ak euh, le ministre des logements la le jeune euh, Fofana la mais qui en train de décliner des choses extraordinaires dans ce pays mm-hmm. c'est une très bonne chose kañ nañu gëj am mais xoolal tey liberté si soo rombee mais mais autorité da ngay gis léegi mais kenn ñemeetul lu la neex nga def nga tabaxee ko. Mm. mais mais Dakar ñu mën a am léegi ay autopont. Mm-hmm. mais am am ay espace mm-hmm. mais c'est une excellente chose. c'est une excellente initiative. Mm-hmm. kon loolu bu buñ ko yàq. c'est une très bonne chose. Euh, que mu am. léegi quel est le problème. mooy ñu continuer fagaru. consensus réew daf koy soxla. troisième mandat déggoo ma la ci. troisième mandat bi. Ah, dama ne gis nga il faut que nit ci xam na ne benn timing le temps aujourd'hui de la justice n'est pas le temps des politiques mm-hmm. tey fii ñu toll mm-hmm. le problème c'est moins problème de troisième mandat que réaliser yi nga xam ne ne dafi toog fii pendant mm-hmm. ñi ngi tey ci coronaro wax naa la ko léegi ne la que suñuy ay problème majeur tey mm. yi ñu am tey mm. mooy ay satu mm. est-ce que balaa ngeen am ne fa est-ce que nos entreprises fii un mois du ñu tëj. parce que président joxe na ay mesures. gars yi war a capter réagir commencé ñu jox lépp. fonds 6 fonds JIP. BNDE et cetera. il faut que ñu gis leen. ñu yegg si mais ku day ni la Sénégal. on avait besoin aujourd'hui pour que entreprise bi nekk au cœur de l'activité économique. il nous faut des banques fortes. il faut aujourd'hui est-ce que disposition yi ñu jël tey ci BAL 1 BAL 2. concerné na tey suñu entreprise non. il faut ñu réfléchir ci. pour ñu mën ci réfléchir. mais il faut que ñu xam fu ñu nekk. il faut ñu xam fu ñu nekk. il ñu xam fu ñu nekk. Mm. il faut aujourd'hui que les banques puissent prêter aux entreprises. il faut que le FONGIP qui est une société aujourd'hui de garantie de caution mën a cautionner les entreprises là parce que tey. les gars ont des problèmes de report d'échéance les on ont des problèmes de trésorerie yan disposition ak matukaay la ci ministre bi jël loolu aysatu maa ngi koy bamtu parce que lu important la et ensuite il faut éviter que ce soit l'affaire de Massamba wala madame de copain nañ ko séquencer secteur par secteur ñu xool ko ñi nekk dans la pêche ñi nekk dans la restauration mais ñi nekk aujourd'hui ñiy jaay ay billets mm-hmm. l'agence de voyage yi yëguñu ko mm-hmm. doublement xoolal ñi préparé woon pour dem Makka encaissé woon xaalisu Masamba Mademba suñu leen dimbaliwul fu ñu jëm on va dire que dañuy na xaalis alors que dañ ko utiliser pour delluwaat mag avancer les trésoreries ñooñu suñu leen ko warul delloo ñëpp xam nañ ne naar yi ñu mel defa duñ leen ko delloo ils vont mais ñi doon jaay billet tey secteur boobu ñu nekk fi kenn voyagé tul fu ñu jëm waaw su ñu bëggee bàyyi Masamba ma mu capté ko musiba la alors que ñooñu ñooy l' essentiel aujourd'hui de la PME aujourd'hui de trésorerie il faut que l' état rapidement les banques pour que ñu joxe mu garantir ko moo tax may wax ne ko banque centrale na lebal état am ci xaalis état li muy demande 30 pour cent euh, budget bi. Mm. bi muy euh, bi ko banque centrale amee mais daf koy permettre mu def ko benn fonds de de garantie. Mm-hmm. pour mën a dimbali ñooñu. Mm-hmm. parce que suñu leen dimbalul ñëppay tëj. Mm-hmm. agence de voyage yëpp nar a tëj. mais ñi ñu dootuñu dem màkk fu ñu jëm. ñooñu ku leen di jàppale. mais Ndiaga Ndiaye ki ëpp yoon benn structure dem jëlee ay caution jënd ñaari taxi ñetti taxi. wala am ay tataam fu mu jëm. ay setu ñooñu suñu leen jàppalul y a un problème. ñooñu il faut ñu jàppale leen président wax na li muy wax joxe na instruction ministre de l'économie ministre des finances nañu taxaw ñu xam lan la ñu mën commencer décliner dérouler. mais mais mais xalaatoo ne wàcc boo gis daanoo ci gën a gaaw leneen ministre bi li ngeen ministre bi li muy recevoir mais ma Sall na recevoir benn yoon gënul gaaw. bon euh, mais bu ko la man man mun na ma non xam nga maa ngi bokk ci majorité bi. Hmm. maa ngi bokk ci majorité bi. Ah, mais mais objectivement. fii ñu tollu sax. c'est pas exclu parce que gis naa ko. Hmm. Ah, euh, war nañu gisante moom rapidement. si mu nekk hmm. parce que am na loo xam ne ne du lu ñuy wax. cest à am na yoo xam ne ne. Hmm. lu may wax ak moom la nii mu dégg ko. lu mel mais captation yi ñuy wax c'est pas normal. mooy secteur privé bi. secteur privé bi. mais moom dafa mel ni kontaan parce que maa ngi gis muy euh, si journaux ñu naan euh, secteur privé bi dañu joxe woon euh, pour jàppale force kii Covid deux mille dix neuf bi Covid dix neuf bi dugal ay six cent et quelques millions gis naa ne dafa moom président daal dafa ko xeet foofu xëy na comme comme mer na ñee xëy na yéen PME yi mais mais yéen yéen tam gisuma ngeen xëy na xëy na xëy na xëy na su tam mu wax ko xëy na moo xam lu tax parce que su dee ñooñu. ñooñu la capté capté nañu. moom xam na fi mu niveau te niveau d'information li ñoo ñu yore ci xaalis ak li ñu capté ci ay ay marché waroon nañu joxe plus. mën na comprendre peut-être attitude am la man xaw ma parce que gisuma ko. mais dama ne rek ay euh, surtout ñii ma lay wax. Hmm. ñuy la majorité silencieuse. Hmm. bari tey di taaba taaba di def ay campagne et cetera ñooñu fu ñu jëm suñ leen jàppalewul waxuma sama bopp mais dañu bare essentiel fan nañu jëm am na ñoo xam ne dañu démissionné. ci entreprise yu ñu nekkoon. monter seen ay petite entreprise pour di pour di yore entretien wu euh, euh, yenn yenn structures yi. Hmm. waaye ñenn structures yi suñu ñoo ñu fu ñu jëm. Hmm. effet de chaîne la. boule de neige la. tey ñeneen ko jot moom ñee. dafa am ñoo xam ne ñu nga calfeutré dans le bureau xamuñu luy réalité wu entreprise di di dogal foofu au lieu ñu woo acteurs principaux yi wax ak ñoom. Hmm. et c'est ça le problème. xam nga loolu mooy président yeewu suba di wax wooy Macky jël ay mesures ñun gisuñu dara. mais applicabilité bi application bi mooy problème parce que moom mënul nekk partout. Mhm. ñamul mandaté ne leen nañu def suñu deful y un problème. Mhm. nañu déroulé te xam na ne que kat Sénégal tey fi ñu toll jakana njaxanaay baax pour gérer la totalité de la PME PMI. E. Mhm. non li nga li nga wax euh, euh, euh, grand am na solo fenn rek laal déggul nga wax fa gis naa ni nga ni nga mbasee président Macky Sall est-ce que lii. troisième mandat Sénégal yi koy joxe. waaw ah non mais mais mais je veux dire lii nii mën na ko yombal kanam parce que fi ñu jëlee bu ñu jëlee fu sori. ah leen ndax leer na. Hmm. lii de su ko ci yàlla mayee ndam. Hmm. xanaa lu lu lu lu lu mu bëgg. Hmm. su dee bëgg na ko. war na ko yomb suñ ci jógee ak li ñu war def yëpp ñu def ko ci lii. waaw. léegi nag moom li nekk ci biir xalam moom rek ko xam. mais dama ne lii daal su ko defee suñu dimbalee que lii ñu sotti. ñu génn ci ci jàmm. mais il va être sur un nuage. c'est vrai kooku c'est une réalité. Hmm. c'est une réalité wax lu ko waraloon. Hmm. pour que nit ci gis. Hmm. et objectivement tey. avant fast euh, avant euh, kii bi di ñëw coronaro bi. Mhm. mais les gens déroulaient. Ouais. Dakar était en train de changer. Mhm. et puis les gens avaient énormément de difficultés mhm. pour circuler mais xoolal tey les autoponts yi nekk ci euh, kii bi Liberté 6 VDN bi. mais suñ ko dindee mais dafay li muy règlement de tali da nga daan jógee ISM pour wàcc dem Sonatel doo ko mën. parce que gendarme dañuy tëj foofu. tey si on te permet sur la base euh, de l'autopont ñiy dem ñu continuer ñenn ci suuf mais lii mooy développement et puis être à l'écoute des préoccupations de ta population lu su nag il faut que mu mu régler deux choses wala mu mu bàyyi nit ci ñu régler ko mooy discipline bi mm. on manque de discipline c'est ça deuxièmement il faut sévir sanctionner ñi nekk ci tali bi yore oto mm. soo jalgatee dañu war a nangu sa permis mm. moom dañu war nangu permis bi il faut que foofu tam ñu toll fii. dëgg la waaw jalgati waratuñ aussi ñu nekk pays la boo xam ne sous-développé où tout est mhm. mais j'attends aussi des autorités wala des députés mais mais mais de deniers publics. et tout. Mhm. yow dëkk boo xam ne lépp prioritaire la le minimum bi ñu yore pourquoi ñu nangu ay nit di ko sàcc. di ko ah, jalgati ba pare di ci génn. mais xam nga ñan si génn mooy ñu jege. nañu ko pénaliser ko pénaliser amuñu sens. nañu ko pénaliser mooy teg coñ-coñ ci xam nga boobu xam xam nga Sénégal loolu xam nga boobu bi muy wax loolu. Mm. ñëpp xam nañ li tax mu waxoon ko. Mm. man je suis pas là pour pour pour du ma. yaa mais non non mm. damay wax bi mu koy wax c'était dans un contexte bien précis c'était affaire u Karim la xam nga ko. Mm. bi muy wax ne que am na ak dossier yoo xam ne bon je ne pense pas barke démb na mu recevoir les conclusions de de de de la Cour des comptes. Mm. Euh, renforcer nit yi wax ne que OFNAC ave des problèmes parce que y avait trois ou quatre gars yu ñu waroon nommer. Mm. mu nommer leen je pense que il a à cœur le souci quand même d'une transparence lu tax ma mës am man faible ak préférence ci Cour euh, des comptes. parce que c'est plus démocratique ay magistrat la avéré et ensuite ay surtout ñoom tous les ans dañuy toog en assemblée générale ne andi dossier yëpp teg ñu ne waa yéegi yan dossier nañu war a dem auditer ci 2020 euh, gars yi démocratiquement ñu ñu accepté yëkkati seen loxo mm-hmm. ne 20 nañu bëgg. Mm-hmm. ñu d'accord ci pour dem ko. mais mm-hmm. lan moo ko gën a démocratique. IGE sax les gens peuvent dire que oui président bras bras bras président la. mais Cour des comptes c'est une excellente chose pour mu ñuy saytu kon Cour des comptes lii président jël muy disposition xaalis bi war a dem tey ci askan bi mooy 69 milliards yi na ko saytu xool na ko taase ba mu mët sëkk mm. mais li nga xam ne ne dañ ko war a dimbali tey entreprise yi na ko saytu nañu xam fu mu jëm mm. ay endroit yi nañ leen ko jox ba mu mët sëkk ci loolu la ñuy xaar mm-hmm. et tant que Macky Sall est dans ce rôle là mi ngi respecter l'état de droit indépendance de la magistrature mais c'est ce qu'on attend de lui. Mm-hmm. ah yooyu c'est toute une question est-ce qu'il est affecté ou pas état de droit indépendance de la magistrature fi mu ne nii loolu moom beneen débat ba xam ne <laughs> comme tey fii nii la kaw daal lañ ne beneen yoon dañuy ñëwaat. <laughs> yooyu moom euh, euh, nañ ko def euh, dañuy def ay points de suspension <laughs> Mamour Cissé njiital PSD jont bi ancien ministre ancien député opérateur économique. Euh, actionnaire majoritaire bu euh, euh, face to face. sa sa émission jeex na. ñu ñu bàyyi yi. mais mais mais ay surtout d'abord man mënu ma xam ne café bi jeex na y avait tellement de choses à dire. waaw waaw c'est vrai dëgg la. suñu waxtaan jeex na fi mu nekk. jeex na seen seen xale yi loolu la xam na grand corona bay tax na yàlla temps du corona <laughs> mais gërëm la sant la vraiment et puis demander Sénégalais yi vraiment su mu mënul ñàkk toog leen seen kër. Mm. nañu toog suñu ah, kër pour que lii dañ parce que dëkk bi mënul avancer mënuñu régler lu ñuy régler tant que amuñu wérgu yaram wérgu yaram bi nga xam ne ne nag euh, corona bi daf ci nar a impacté yàlla ñu yàlla dimbali ñu pousse ko mu jóge fi mhm. pour que ñu mun a delluwaat ci suñu activité normale mais nañ ko def pour un mois deux mois mu dëñ fi moo gën yu toog fii mais hécatombe di am ci réew mi. mooy lu Poutine wax rek nee na euh, euh, euh, na na na 15 jours euh, euh chez eux. Oui. ou xaw ma 5 ans. <laughs> il a raison <laughs> en prison. <laughs> est ce que foofu toll nañu ci est ce du Sud euh, bi nga xam ne ne waa ji fa njëkk am corona dañ ko dóor bal. mu wàcceel est ce que am na fii. mais li ñuy ñaan aussi mooy discipline. état bi il faut mu jël ay responsabilités pour pouvoir sanctionner. c'est gis ay camions ci mbedd mi et ci autoroute à péage bi. te am na ay gendarme ci péage bi. loolu la mën nekkee. rafetul ay satu nañu sanctionné. rafetul jaaduwul <laughs> alors Mamou Cissé la woon euh, njiital euh, PSD jant bi moo doon invité. Euh, di ko gërëm di sant moom actionnaire nee naa majoritaire bu émission bi émission moom yaa fi dogal. waaw bii moom wan nga ma moom yaay borom. <laughs> <laughs> yaay borom ma nga nuyu baax di ko gërëm di jaajëfal euh, bu baax euh, euh, tamit yéen ñi mbokk yi ñu toog seen i kër yi di ñu seetaan di leen jaajëfal di nag jaajëfal bu baax ak ndokkeel axlu laayeen gis nga appel bi normalement semaine bii ñoo ko moom waaye nag gis nga li fi xew ba tax na appel maam bàyyi laay boobu kenn ku ne def ko ci sa biir xol ah euh, rek euh, fasaale ko euh, donc di di di di ndokkeel ñëpp xalif général kullu laayeen toftal ca Serigne Doud Laay imam Mamadou Mactar Laay imam ratib bu grande mosquée bu yoof ak nag euh, Serigne bas ah Serigne Bass nag euh, mu euh, Adja Mareem sama njëkkee buur boobu nga xam ne daanaka sama maam la lu ne laa koy yàq moom su ma su su ma nee Mareem rek dugal naa sama njëkkee yëpp ah ñoom maam Seyni ah ñoom ñoom ay seen loota caw ñoom ku ma fàtte daal ñëpp daal ñu ngi ci biir waaw ñëpp tout le monde est dedans may fóon nag bu baax nag munaas jigal moom moom moom sama sama njëkkee de kër la ma nga foofu France sunu xel yëpp nekk ci moom ak nag euh, euh, euh, sunu sëriñ sunu chéri sëriñ Mor Laay mu sama xuloowaale ma Rose Rose Diagne nu mais comme dañ dañ nekk ci corona moo tax du ma ko du ko sànni xeer axul laayoon yëpp daal maa ngi ndokkeel ñëpp di di di eh, di souhaiter ñëpp un excellent appel euh, appel bi nag autrement lay doon donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, make-up bi comme d'habitude rek nay màlle ma nga nee toog euh, ne ndigg bi day metti waaye terewul na ba ñëw moo def make-up bi glam style bàyyi ma dow Euh, def musóor bi euh, tenue bi nag euh, sama benn rakk la ma nga foofu point E bi ba design këram ma nga jàkkaarloo direct atelier am donc ma nga jàkkaarloo direct ak grande porte bu université Cheikh Anta Diop ma koy gërëm di ko sant moom di nuyu borom këram ak nag tayëram bu ay boobu Souleymane ku ma fàtte daal nga baal ma ko Ibrahima Cissé voilà Ibrahima Cissé nag moom moom presque mooy lépp